ok donc xam nga ce que cela veut dire. rapport génn ñu indexé ci nit. exactement sans autant avoir des preuves. yoo xamante ne dañoo concrète. Mm-hmm. à ce titre est ce que lii ñuy wax naan attention rapport yi dina génn dinañ topp nañ topp yow est ce que mën nga inscrire ci logique boobu dès lors où xam nga ne des rapport mën na am euh, te fekk ne yow mi nga xam ne yaay la personne concernée laajuñ la sax sa réplique ak sa explication ba nga mën a apporter des éclaircissements ci li nga xam ne moom jaxase carte gi pour uniquement sëllax suuf kenn du comprendre ce qui se passe. Euh, comme ni nga ko waxee rek les rapports. j'ai l'habitude de recevoir les rapports. Euh, sama bos génnee nañ ko. Mm-hmm. Mm, je ne sais pas nag 45 la ñu génnee bés boobu c'est un mardi. on c'était le 29 avril. 45 mais bu Moussa daal lañu ñu teg ci kaw. wax nañ ci oto 80 millions boo jël. <laughs> waaw waaw ay ay euh, budget ci téléphone. lu nekk dégg nañ lu nekk dégg nañ ko. mais est-ce ma génn parce que man transparence dong moo may rey. ba premier mai dégg nga di nga wax. déedéet parce que c'était

man si rapport gisoo benn un daan volé. mais est du li la defoon noonu moom lañ def tamit ci wàllu Covid bi aussi. yombul de six ans et demi nag laaloo un franc. joxoñ leen <laughs> fekk ne peut dans les faits noonu la demee. <laughs> parce que des fois. non je comprends de kii la faute euh, de de de ni koy woowee. Euh, euh, ci procédure lay doon. Ah. plutôt que détournement de deniers. non man rapport bi moo ne lan lañ soxla actuellement. Hmm? ceux qui ont pris les deniers publics. c'est ça ma ñëw ñu ne mooy egg nga feu rouge. da nga waroon tourner droite te tu as tu as tourné la gauche. man leen kuy dawal moo xam nu muy arrêté oto bi ak fu mu jaar. Hmm. pas ku defar oto bi kuy dawal fu oto bi nekkee di déraper moom moo war a xam nu mu koy arrêté. man on me dit par exemple j'ai acheté des véhicules pour les cadres. Hmm. man du ma def mission bi ñu ma jox. moderniser Dakar Dem Dikk def ci Sénégal dem Afrique Dem Dikk les liaisons régionales ak yeneen ak yeneen ba ñëpp saluer ko mais ñëpp saluer ko man samay cadre yi nga xam ne war naa la yónnee dans toutes les régions du Sénégal ñuy def à pied wala ñuy dugg ci ay horaires daf leen jëndal oto parce que j'avais les moyens j'ai fait entrer à Dakar Dem Dikk dans une seule opération vingt quatre milliards benn ministre mënu ko def fii très bien alors ñu ñëw ci situation économique sociale économique bi nga xam ne Sénégal mi ngi koy dund ñenn ñi jàpp ne conjoncture économique ñu ngi koy dund euh, actuellement ñu bëri duñu jàpp ne entreprise yeeg secteur privé bi ñëpp a ngi jooy. ñu mhm. ngi leen asphyxié euh, cette situation économique bu xaw a yéeme ci sunu entreprise yeeg secteur privé bi euh, am nga ci écho n'est-ce pas naka nga ko jàngatee. non mooy li ma lay wax rek foo laal day métti. Hmm. y compris dans le secteur privé euh, gis nga patronat bi ñu ngi wax. Hmm. commence ñu ngi commence di wax war a discuter avec le président de la République. ça c'est une c'est une réalité. loolu moo tax de xale yi gis nga ñëpp ngi pendant que ñenn ñi jógee bitim réew di ñëw di immigré si au Sénégal parce que y a du pétrole du gaz ak yeneen du diamant du zircon du n'importe quoi alors que ñun xale yi ñu ngi génn c'est paradoxal mm-hmm. la pêche gis ngeen <laughs> il a fallu que ñu suspendre rek waxuma sax arrêté suspendre kii euh, annuler suspendre les accords de pêche ñu gis ni la pêche artisanale était tuée mm-hmm. jën bi commencé gën a bëri yooyu yëpp dañ ne il faut ñu renégocier ko c' est vrai. parce que c' est dans l' intérêt du pays. gis ngeen le ministre des mines de l' énergie dem na fi nga xam ne moo ëpp minerai au Sénégal gis nga pagaille bu fa nekk. gis nga des sociétés yoo xam ni qui doit payer cent cinquante milliards de redressement fiscal je dis bien cent cinquante milliards. SGO bii indi cow li temps yi. redressé ne ko cent cinquante milliards fayuñu ko ba léegi. à côté y' a Barrick Gold. toujours les les les loo si 120 milliards li ñu leen redressé par le ministère des finances 9 milliards et quelques lañu ci fay. Birahim Seck wax na ko avec preuve à l'appui j'ai les preuves. yéen na lettre Moustapha Ba qui était le ministre des finances donc mën nga may expliquer pourquoi ñi kii yoral la bor wala ñii yoral la bor fayu ñu ngay dem di lebi FMI. c'est da lay indi plus de charge. Mm-hmm. tontu ko Birahim Seck a saisi l'OFNAC. Et quelque temps après, vous avez vu qui nga xam ne mooy rewoon transparence sur les ressources minières. Mm-hmm. Eva Marie Coll. Mm-hmm. ne li ma gis bi y a trop de corruption. j'ai l'article. et pourtant ñooñu ñooy bundu xataal sunu compatriotes yi nekk foofu di fa liggéey. te loolu. et malheureusement fii la ñu toog. ñu koy ñaawlu ba tey. Mhm. xale xëy na jour ba ñu fi jógee parce que mhm. jour boobu fekk na ñu suspendre seen seen grève. Mhm. ba euh, seen jëwriñ beneen boo xam te ne wax na ne ñu ngi ci waxtaan mais bien avant bari na lu ñu fa dund. yoo xamante ne amuñu ci benn solution et que seen ministre de tutelle même gisuñu ko mu mu ñëw ci seen seen wet. non non au même moment pour pour emploi. oui non non ministre de tutelle avec. waaw mais même jël ñu nekk wàllu mine également wax nañu ko fii ko. je pense euh, gis nga réew boo xam ne pendant douze ans mi ngi nekk ci loxo benn régime léegi li fi doog a jógee ça ne fait pas quatre mois. Hmm. ou bien bu defee quatre mois si la yem. on ne peut pas venir en quatre mois. gis lépp lañu ci def en douze ans. dafay yéex mais c'est vrai dafay dafay nit ñi somm ku sonn moom du dégg. du gis loof quoi. <laughs> day loof voilà du dégg du gis. Euh, ci loolu. je dis par exemple ci fatiguement bi nga xam ni coono bi nga xam ni. Mm. Sénégalais moom la ñu dund. ba keroog ñu jóg nee na nañu laal def effort ci réduction. des des denrées du prix des génn si cinquante trois milliards et def ko. yombul woon. ba nit ñi di comparer par rapport Macky Sall ba mu fi ñëwee en 2012. parce que Macky ba mu ñëwee en le taux d' endettement du Sénégal était environ de quarante quelques pour cent quarante pour cent. plafond nekk soixante dix donc am nga marge dem lebi xaalis boo lebee xaalis le subventionné carburant bi subventionné les les prix des denrées mën nga wàññi les prix. Ah. mais boo demee ba ñu li ñu la autorisé woon soixante dix pour cent et quatre vingt amatoo marge. xam nga li nga li leen di waxal li nga leen di waxal nii nag. yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci politique dëggantaan ak maître parce que. en quatre mois ils ont redressé des entreprises y compris celle de la presse aujourd'hui euh, moment boo xamante ne tout à l'heure wax nga ko des entreprises étrangères bénéficient d'exonération fiscale. teg ci war a fay cent cinquante milliards fay quatorze milliards. Mhm. amee état bu Sénégal cent trente six milliards jamono jooju sunu entreprise yi nga xam ne sunu secteur privé national ñoom ñoo ci nekk mais ñu ngi gàllankoor di tëj. Mhm. Fada il faut nga xam ne il faut xam ne. loolu également est-ce nga xam ne. avec des pertes li ngay wax dama koy confirmer il faut nga xam mhm. ne da nga xam li ngay wax ni da war a xam ni réew bu mel na Sénégal bi nga xam ni. fas-fas la amoon ay cacahuètes arachide ak yooyu la fi amoon di jaay. amuloon marge de manœuvre di leb de façon aveugle plan bu nekk def nañ ko fi. réagissement structurel ak de machin lépp dégg nañ ko fi. moyen d' état moyen d' état yëpp ko fi. y' même restructuration de la dette en 2006 pour Wade moo tax ñu wàcc woon le taux d' endettement. Mhm. mais il faut nga comprendre aussi que li fi xewoon ci réew mi dafa doy waar impôt moo tax ñu moo ñuy permettre ñu defar tali comme que amuñu woon beneen ressource moo ñu mën a expliquer léegi civisme la nga fay say impôt mais bu ñu la bàyyee à travers des négociations ou du copinage ñii di fay ñii duñu fay ñii ñu leen di defal ay exonération fiscale yoo xam ni uniquement ay milliards la je dis pas uniquement ay milliards la mm-hmm. am ñoo xam ni ils ne pas d'impôt ici li leen ñëw ñu leen pendant cinq ans vous ne faites rien du tout je les jeunes franchement mais dem na nga ñëw dugg ci bureau un ministre des finances mën la tu devais payer dans un redressement comme ni ma la waxee léegi cent cinquante milliards boo ma ci joxee trois le reste je laisse tomber arrange qui ah oui ça arrange pas l'État mais gars am na lu ñu am de parce que àdduna fii kenn feccul. <laughs> loolu xam nañ ko tuddee on va vérifier pourquoi ñooñu bu leen recevoir daañu wax seen cinquante cinquante milliards pourquoi fayuñu ko. mais loolu ils sont même capables de dire oui loolu corruption la mais dañ jógee ci contexte Covid 19. entreprise yu bëri ci jafe-jafe la ñu jógee. exactement Covid milieu des affaires. Covid 19 dafa jafe-jafe gàllankoor. damay d' accord mais pendant moment boobu aussi. Hmm. ñaari réponse laa lay jox ci loolu pendant moment boobu ñu naan restez chez vous. Hmm. gars di dajji bunt yi di def lu leen neex avec l' argent du contribuable. Eh. pendant Covid 19.